dañoo def élection yi ba pare ñu soog a tabb suñu gouvernement le 2 biñ tabee le 2 suñu gouvernement le 5 ki nga xam ne moom mooy euh, président de la république ñu indil ko nombre de ministres ci ministres yooyu mu dégager li nga xam ne mooy benn axe waaye axe yooyu yëpp ci li mu tënku mooy sur un projet mm-hmm. projet boobu moom la ñu am ci bi ñuy campagne. Mon projet qui a une vision vision est d'avoir avoir un Sénégal juste prospère un Sénégal souverain mais dans une Afrique en progrès Il mhm. y mu tënk ci axe bilan dañ y a axe mhm. premier axe bi wax nga renouveau des institutions et africains, mhm. africain suis sur le plan de bonne gouvernance et sur le plan de la réintégration africaine Yen Diego ci 100 jours yi ci le président Bassirou Diomaye Faye def mhm. bu ñu jëlee li nga xam ne sur le plan de la réintégration africaine le président Bassirou Diomaye Faye il a su réincarner ou bien redorer le blason de la diplomatie sénégalaise mhm. partout en Afrique mhm. mooy bu mu njëkkaan dañ daan gis njiitu réew bu faloo day génn dem ci yenn dëkk yi maanaam tugal waaye moom mooy njiitu réew bu falu 3 mois nga dem ci pays en Afrique. ben pays nga dem bitim rew te sa a bi moy sur le plan de l'intégration africaine il a su faire ce qu'on appelle renommer li nga xamné ministère bi nga diplomatie africaine. ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères tamou mu le ministre ministère des affaires étrangères et du Sénégal de l'extérieur ça c'est de gis nañu aussi taxawaay bi nga xamné ne am na à l'étranger sur le plan diplomatique ba tay ji diggante CDAO e e ak AES tay ji ñuko ci mandaté ngir mu dem def li nga xamné ne euh, moom mooy def médiation yi. lolu lu am solo la. on a plus vu en hein, donc. Euh, euh, lu melni une diplomatie de proximité. de bon voisinage là merci beaucoup voilà. donc bu ma jël sur le plan bonne gouvernance boo bonne gouvernance ak ay pàcc la li ci ñëk moy tay boko ko doon jël sur les acquisitions démocratiques qu'est-ce que le président président de Faye a fait d'abord action démocratique il a démissionné du poste bi nga xamné ne au niveau de Pastef ça c'est deux deuxièmement il a nommé des ministres neutres mais des ministres aussi yo xamné ce sont des ministres apolitiques dans les euh, euh, ministères de souveraineté Le ci intérieur lu ci mm-hmm. forces armées justice mais aussi lu ci mel agriculture et cetera. Mhm. beneen bi mooy bu la jëlee sur la révision des comptes mën nañ jàpp ci bilan bi ne def na li nga xam ne mooy les publications des rapports et mhm. l' exploitation des rapports par li nga xam ne moom mooy le ministère de la justice. Mhm. yamul ci loolu bu ñu jëlee sur li nga xam ne mooy la réduction des dépenses publiques le président Bassirou Diomaye Faye maanaam def na ci jéego yu am solo mooy fexe na ba mboolem seen entité yi nga xam ne tey jii am na fi ci 100 jours yi ñëpp enclenché li nga xamné moy des audits. Mhm. ci yi nga xamné moy dans les directions et ministères. Mhm. mais aussi en même temps face li nga xamné moy décret bi le président Macky Sall signé won ngir mhm. mën a jox. ñi nga xamné moy mooy ministre ancien ministre lepp lu jëm ci walu ay ay indemnité ak ay ak ay salaire waaye bu ñu jëlee ce qui est matériel bilan bi mën naa ko njëkk a jàppee sur li nga xam ne mooy dette yi nga xam ne ci 100 jours moom le président Bassirou Diomaye Faye fay dette boo xam ne tolloon na

Euh, manam des eaux pluviales. Mhm. ba ñi ko seqaloon taxawal lepp lo xamné ne jëm na ci walu euh, manam euh, travaux d'assainissement manam mu tolloon ci manam 7 milliards. le mhm. président Bassirou Diomaye Faye fay na 54,5 milliards ba fi may waxee yow bo demee fu mel Touba. Mhm. travaux yi reprendre na. bu ma jëlee ci walu mbay mi. le président Bassirou Diomaye Faye ak ministère bi nga xamné mom moom la lëkkalool té mu jëm effectivement ci li nga xamné moy ministère de l'agriculture de l'élevage def na ci liguey bu am solo ci 100 jours yi. lim ci njëkk def d'abord moy budget bi tollon ci 100 milliards daw ren yóbbu na ko ba 120 milliards. loolu benn la. Mhm. deuxièmement jox len 35 000 tonnes de phosphate gratuite. Mhm. engrais bi nga xamné ne doon jar de 60 Nous, on ñu wàññi ko ba de 20% pour 22%. deux li nga xamné aussi mom mo jëm effectivement ci euh, manam lepp lu jëm ci semence bi le président Bassirou est Faye jël nako ko ko ba 15% waaye nag ñu sécuriser li nga xam ne moom mooy doon bi bu ma jëlee lu jëm ci wàllum pêche tey jii gis nga ne def nañ une publication par rapport ak li nga xam ne moom mooy flotte yi nga xam ne moom moo mm. amoon te euh, ONG yu ci mel ni Greenpeace daan ko mm. kaas ci 100 jours publier nañ ko waaye aussi ci 100 jours le président Bassirou Diomaye Faye def na li nga xam ne aussi moom mooy renégociation ba suñu géej gi nga xam ne tey jii ñoo nekkoon te ñu seqoon ko Mauritanie seqoon ko si ak Guinée Bissau renégocier ne contrat yi mu am une fluidité boo xam ne suñu béykat suñu nappkat yi tey jii na nga fay dem mm-hmm. waaye aussi ci 100 jours

bu ko tay sur le plan de l'assainissement assainissement ku ne xam ne dañoo nekk ci nawet le président Bassirou Diomaye Diakhar Fay manam def na ci liggéey bu ama am solo débloquer lu toll ci à travers ministère bi nga xamne mom mo yor lepp lu jëm par exemple ci walu assainissement hydraulique mhm. manam débloquer ci somme bu ama am solo bo xamne tay ji permettre na 1 milliard 445 millions ñu mën ci def des curages ci ñett lo yi may wax moy mhm. le 1 Dakar le 2 mooy euh, zone yi nga xam ne hors de Dakar lot 3 mooy lot yi nga xam moo nekk ci ci programme boobu ñu tuddee projet 2 yamul foofu débloqué waat na lu toll ci 2 milliards 252 millions ngir kat ñu mën a suqali lépp loo xam ne dafa jëm ci accès euh, maanaam à l'eau ci maanaam zone rural bi mhm. benn mooy ci loolu tax na somme boobu tax na maanaam ci diggante 100 jours yi le président Bassirou Diomaye Faye ak ministère bi nga xam ne moom la dénk muy le mhm. docteur Cheikh Tidiane Dièye mhm. ci 100 jours yi am nañu réalisé nañu 19 forages. Mhm. dans le monde rural il y fi toogee forages qui forage 16 forages qui xam mettre en service. 5 mhm. châteaux d'eau 166 620 mètres Manam, ci lepp lo xamné mhm. euh, dafa jëm linéaire ci réseau d'alimentation eau potable. réalisé nañ 82 euh, euh borne mhm. euh, réalisé aussi li nga xamné 6 euh, stations charrettes, 11 abreuvoirs 900 brassements sociaux, 22 mhm. unités de, de, de, de, décoration, 23 équipements, pour la mise en service. Mm le domaine, nous réalisons 5 forages, nous 5 forages, nous réalisons tout bas, à Lille, Bagdad, Héliport, euh, Fat, ak fi nga xam mom moy mooy khafor donc li lepp ci réalisation yi waaye sur le mhm. domaine du transport le président Bassirou Diomaye Faye lijjanti na ba amaat nañu cinq avions yo xam ne tey ji à travers benn coopération bu ñu am ak république tchèque fofu lañ ko amé mhm. waye tamit gis nañ li nga xam ci transport bi bi li nga xam mom moy tabaski bi ñëwee mobiliser nañu l'ensemble ensemble yi nga xam mom moy tay Dakar Dem dik ngir mëna faciliter li nga xam mom mo jëm ci effectivement jëm ci jëm ci jëm ci lepp lo xam dafa jëm ci ci walu tabaski bi buma ma mhm. ci li nga xam moy éducation nationale jëm ci formation professionnelle jëm ci li nga aussi moom emploi insertion. Mhm. def na fa liggéey bu am am solo ku ne xam ne ni élèves ci bari dañ doon am problème këyit. Mhm. waaye ren gis nga lijjanti na bépp élève boo xam ne tey ji danga amoon maanaam problème mu kayit fa dem nga ja def sa examen moo xam BFM moo xam baccalauréat moo xam certificat. waaye yemul foofu def na pose première pierre à Touba. Mhm. ngir mën a def li nga xam ne moom mooy une centre de formation professionnelle. donc bilan di mën naa ko jël di ko jël di ko jël di ko jël mhm. surtout la réorientation sur le mhm. plan de l'habitat bi nga xam moom lañ def au niveau de Daga Xolpa. ci les cent mille yoo xam ne tey jii jël na ko yoo xam ne mën naa la ko wax ak yoo xam ne tey jii sénégalais pratiquement gisal nañ ko seen bopp. donc tay ji en résumé. Mhm. japp nañ né le président Bassirou Diomaye fay def na bilan bu am am am solo ci 100 jours yi. Mhm. may wax né nak c'était pas évident parce que liñ fi fekk tax. ben mhm. fee jéego yi dal jéego yi. li mu def effort la en fait effort la parce que liñ fi fekk tax. liñ fi fekk moy lan moy fekk na fi dund cher te ci bilan bi mobilisé na lu toll ci 53 milliards. def ko ci li nga xam ne moom moo ci dund gi wàññi ceeb wàññi diwliñ wàññi mburu wàññi aussi li nga xam ne tey ji moom mooy suukar mhm. te loolu ci trois mois yi la ko def mhm. waaye nag fekk na fi pax yoo xam ne à la fois ci nga xam ne kii jàmbar dëgg la te liggéeykat la moo gouvernement am mhm. à la fois day suul pax yi di fay safara si mais à la fois aussi mi ngi liggéey li nga xam ne moom mooy sénégalais